آتيتني يا ربي من لدنك ذكرناك من فردي دونك باركت لي يا ربي في حروفي وخيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خادني تبشير وتكريما jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy àndal ci senevision point com ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi Arona Cissé moo nekk ci kàddu gi ngeen jàkkaarloog moom Seexuna Kan moo ñu féetal ci wàllum caméra bi. tey jii nag xam ngeen ne ci la ñuy fàttaliku jàmbaar ja Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke mi nga xam ne moo nekkoon ñaareelu xalifa Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke. nekk it juróom-benneelu xalifa Serigne Touba Cheikh Ahmadul Khadim Khadim Rasoul tey ñu nag ñu koy fàttaliku fii nga xam ne moom moo di ci Aliya waaye xam ngeen ne tamit jamono ji contexte pandémie bi ñu nekk moo tax ndigal daal di jip eh, ngir ñu daal di rek soppi li nga xam ne moom moo di eh, niñ ko doon amalee waaye nag eh, ci ni nga xam ne it noonu la ko sunna santaane noonu lañ ko fi amalee muy jàng alxuraan. def ay salaatu ala nabi bendeel ñi nga xam ne it euh, ñoom ñoo fi teew loolu lañ fi daal di nemmeeku di jaare bu baax Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke euh, di ko ñaanal jàmm tey nag ñi ngi fii nga xam ne moom moo di kër Serigne euh, Galas Kalto Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke kenn ku nekk xam taxawaayam ak njàmbaarteem ak pas-pasam ci yoon wi ak bëgg Serigne Touba bëgg woy juróom yu baax yi waaye bëgg Cheikh Mouhamad Lamine baara déggalit ñi nga xam ne ñooy magam yu baax yi tey nag senevision point com daal di ñëw seet si ko fii muy sunu woyjur di sunu xarit di di ko baax koo xam ne tey am nañ mbégte mu yaa ngir ñëw teew fii ci pàkkam bu tedd bii euh, fa yéenee daal di ànd ak moom xam naa ne rek ci jataay bi ñi ngi fii toog ak moom nii toog ak sëriñ Abdou Fatah Mbacke euh, moom euh, sëriñ Baara Mbacke moom sëriñ Modou Bousso Dieng mi njëkk nekk xalifa Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke waaye sëriñ Basirou Bousso imam tamit mi ngi fi war a yëkkati kàddu kon du ñu guddal rek dañuy bàyyi sëriñ Garas Kaltom Mbacke mu daal di ubbi jataay bi kon sëriñ bi ñu ngi am mbégte mu yaa ngir dalal la ci Sénévision ginnaaw bu ñu dalalee fii di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi lay nuyu te di la sant di la gërëm di feddali bu baax suñu digganteeg yow ci sa waajur di ñaan yàlla saxal njëggal ci moom te yàlla sàmm la yàlla yiir la dolli si sutura te barkeel sa liggéey loolu daa mënta ñàkk ci tàmbali bi ndax ni nu demee ak yow moo tax te ca moom la tàmbale woon kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi mbokk julli di nuyu mbokk taalibe yi di jiital ci sunub ziyaar ginnaaw bu ñu toogee ak sunu bopp sunu doom la sunu xarit la ñu ngi ko waxee di sëriñ Abdul Fatah moom sëriñ Baara moom sëriñ Modou Bousso Dieng di sama doom waaye di sama xarit Cheikh Amadou Bachir di mbokk di lépp di sunu imam ñoo ngi yëkkati ab nuyoo bu sell ci sama tur ak seen tur ak turu bokk yi fi daje yëpp di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa ak yoonu murid wépp di ko ñaanal yàlla suñu boroom sàmm ko te yiir ko mottalil ko ay yéeneem ci ab liggéeyam ci toolub Cheikhul Khadim bi buñ ko waxee mooy lislaam ak taxaw ak taxawal luy dund ak dundal liggéeyub Serigne Touba bi naal yi mu fi naal jarul tudd fenn fu naal ndax moom lépp la naal lu baax sëñ mu taxa lu baax lépp la naal kon lu baax li mu naal lépp lépp lépp lépp buñ ci tuddee université bi day mel ne loolu dong la waaye sëñ Muntaxa lu baax lépp la naal man loolu laa gis te loolu laa yëg kon li mu naan lépp yal na ko suñu borom mottali di jaarale ci ziyaar boobu nuyu suñu di ci toftal sëriñ Moussa Naël mi nga xam ne jëwriñam la sunu mag sunu xarit euh, mu am nu mu nu mu demee ci nun loo xam ne lu sori la dañuy sant yàlla bi ñu yégee jàppal nanu ko waaye dañuy sant yàlla bi ñu yégee ne xam nan li ñu séq moom bu mate ko sëkk di yëkkati nuyoo bi gën a sell di ko teg ci loxo sunu kilifa yi nga xam ne mooy Serigne Abo moom Cheikh Abdoul Fadal di kilifa njabootu Serigne Fallou gépp di ko ñaanal yàlla suñu borom gën koo yàggal gën koo defal wér ba mu mottali ay naalam moom ci biir kër sëriñ Falilou waaye ci liggéeyub Serigne Touba bi lañ ciy toftale sunu kilifa di Cheikh Mouhamadul Bachir moom Serigne Falilou di ñaan yàlla suñu borom mu dolli ko wér dolli ko fee yàggal ak bëggam ak yéeneem yal na ko yàlla mottali ci barkeb sëriñ Falilou. Cheikh Abdoul Fatah moom Serigne Falilou Serigne Mourtada moom Serigne Falilou ak njabootu Serigne Falilou gépp góor ak jigéen ak bokki taalibe yëpp waaye di jottali ab nuyoo akub ziyaar ci sunu kilifa di kilifa njabootuk Serigne Baara mu Serigne Moustapha doon koy ñaanal li nu ñaanal ay kilifaam dan na yàlla mottali ay yéeneem jiitu ci bu ko yàlla defalee wér defal ko fekke defal ko tal di nuyu njabootug Cheikh Amadou Lamine gi yëpp yëpp yëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu nag njabootug Cheikh Amadou gi nga xam ne ku ko xam ñoom nga ko xamee mooy taalibe Cheikhul Khadim ci seen lépp waaye ci léppam bis bi buñ ciy fàttaliku Serigne baara di ko ñaanal jotatul wax ni Serigne baara demee ak Serigne Falilou ku ne xam na ne ab taalibe ma waaye. ñu nekk ci lii tey war a xëy jëm ci lee suba rek doy na firnde ci ne Cheikh Amadou Lamine am na tawfeex tawfeex kooku suñu borom defal nag yan na law ci bokkam yépp waaye yan na gën a sax ci njabootu boppam gi nga xam ne moo leen njaboote te am lu mu ay warwar war diggam ak njabootam waaye njaboot tamit am ay war-war diggam ak moom nu xam cër yi ko yàlla suñu borom defal waaye tawféex gi mu am ci Cheikhul Khadim te lépp jaarle ci Serigne Falilou ndar képp dara romb ko ci. bi nu ko xamee yan nañ ko yëg bi nu ko yëgee yan nañ ko dund bi nu ko dundee yan nañ ko dundal yan yàlla defal yéene dund ko ak dundal ko te lépp lépp tënku ci ak taalibe yal na ñu ko barke bis bii defal yal na yàlla sax di dotti ay njëggal ak yërmande ci jëmmam ja ak jëmmi ay kilifaam ak jëmmi ay bokkam yam fa nekk waaye jëmmi julliti yàlla suñu borom yëpp yàlla am na ko mën na ko yal na ko yàlla defal di sant bokk yi fi teew yëpp di taxawe bisub sëriñ baara di ko ci fàttaliku di ko ñaanal lu bokk ci Cheikh Amadou Moustapha Mbacke Falilou Serigne Modou bu seen jiitu ci kër gi muy Serigne Afé moom Serigne Modou doomam a ngi nii toog di sama doom mi ngi ci biir waaye di jottali ay kàddu yi seere ci Cheikh Amadou Lemine njabootug Serigne Baara dugg si sëriñ Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Aziz moom Cheikh Amadou lemin ah ñun de bég nañ de alaaji amul dul Serigne Fallou kon sëñ Modou doy na seere ci alaaji baara ci sëñ Fallou amuñu lu dul Cheikh Amadou Lamine euh, tawféex gi sunu borom defal doy na seere ci ñu koy waxtaane wala ñu nekk ci wala ñu koy jéem a jëf dara te di ci sàkk aw yiw lu bokk Cheikh du Lamine ndax Serigne Sidi Mohamed sëñ Abdou Aziz sëñ Abdou Aziz Serigne Baara loolu doy na tawféex bi nu xamee ne loolu doy na tawféex ñoo ngi ñaan jagleeg sunu borom. def ko ci njaboot yëpp waaye rawatina ci biir njabootu Cheikh Abdoul Lamine yal na yàlla def ñu dégg te xam ànd topp ak jëf ak jëfe lii mooy tawféex ji am ci sëriñ bi tawféex jooju am nañu sunu borom dimbaleel boppam sunu xel dal na ci jëmmam ja waaye du tee ñuy sax ak a dëkk ci jóg du ñu jóg ci di ko ñaanal yàlla suñu boroom li yermande ci jëmmam ja te dolli tawfex ci njabootu bopam jëm fi bayyi muy goor muy jigen tambale ci Serigne Moustapha ak ñi nga xamne ne ñoo bokk ci njabot gi ak suñu bok dongo yi yan na yàlla sàmmal leen yalla yan na aaral len yan na def sutura ju ànd ak tawféex sax dak ci mi njabotu l'islam gep ci kilifay diine yi nga xam ne kenn ku ci nekk am nga ci bopp kër goone ne di fa taxawul yàlla suñu borom ak yonent sallallahu alayhi njaboot ga ca nanga leen war a taxawoo yal yàlla dëbb leen kàttan dëbb leen wér dëbb leen fekke dëbb leen tal di ñaanal jigéeni réew mi di ay wëy di ay maam di ay wëyjur di ay mag di ay rakk yàlla suñu borom sàmmal leen boppam ñu ngi leen di wutal bis bu ñu leen di màggal ak bis bu ñu leen di kañ waaye yàlla mi leen bind te jógut ci ñoom yal na yàlla sax ci di leen dimbale ndax looloo gën a wóor jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi rafet rafetlu nañ kàddu yi bu baax rafet euh, rafetlu nañ jërë ngeen jëf kon mbokk yi. ki doon yëkkati kàddu mooy Serigne Galas Kaltoom moom Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbacke balaa may jox sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir Bousso ma seere tuuti rek ci sëriñ bi euh, nit la koo xam ne séentu naa gis naa ci moom ñeenti jikko ba ca njëkk mooy bëgg sëñ Touba te buñ ne bëgg sëñ Touba mooy bëgg njabootuk sëñ Touba gépp beneen ba ca des mooy ku yëg nit la ku mën a yéegal nit la mooy ku mën nitam la. waaye ku dul yéeg nit la mooy ku respecté doomu aadama la kon yéeg na nit du yéeg nit te day yéegal nitam ba ci jiitu nag mooy bëgg sëñ Tuubaa kon loolu Mbàkke lañu la ñu gis ci yow la Alaaji Taala Cissé moom canama doon wax ne doomu aadama wala nit ki su fi bàyyi ko muy tariikal lu ñu war a donn nee na ba fi lu baax lu baax la waaye ba fi ñu baax a ko gën mm-hmm. ndax boo fi bawee lu baax te boo fi ñu baax lu baax loo fi bàyyi woon ñu yàq sofi fi boyee ñu baax ba fi lu baax lu baax loo fi bàyyoon ñu dolli ko te loolu la Cheikh Mouhamadul Amine Baara def dem na nekkee fi lu lu ñu ndax ku ne ko jak ak fu mu mën a teew représenté fa yoonu murit wek ko gis weg weg yoon wi moo xam ci toogaayam ci waxam ak ci jëfam ak ci comportement bu toogee te waxoo ne jox ko cër su waxee nga naw ko su soloo nga naw ko su jëfee nga naw ko te loolu moy doomu adama loolu nak li may moy nite sama waajur sëñ Fallou Cissé nee na juddu doon nit yomb na ndax ku ñaari nit jur nit nga mu soga am nak luñu wax nite nite nak la koy maye moy nat di nit nat ak nit lu muy maye moy taxa ragné ëpp ak cëkk ngir tàmbali mat sëkk te loolu buñ ko bolé day ñu dugg ci biir xam sa bop moy nit day xam bopam ki ku xam bopam la kon nak fiñuy waxé la Sidi euh dugg si momit ñepp ragne taxawayam ñepp xam digam ak serigne bi mu ñew di ndokel ci euh, yalla dafa dogal bi ñuy teunk kaddu lay dugg si waye ni nga ko waxe xeyna na xam nga ko ay japp na ne mala ko ñëk xam muy sama mbokk di sama xarit euh, dama koy wax waxtu ne lol nak mom man man man la engager dama ko ne ko sëñ Sidi bu mo doon wut nit ku amut sik te mën a sax nag waat dogu ci ne amut bakkaar ngir li tax a def safaanub loola moom mën naa ko waat ci sëñ Sidi Ñang wallaahi lazim waaw ndax yàgg nan ànd nañ lu ëpp du ma du ma tuddul sama la ne kër ga wala sama ñam ñam njaboot yi déedéet loolu sama nekku loolu moom yàllaa koy dogal ci diggante ay nit ak waaye man lim dogal sama diggante ak moom laay wax nit ku baax la nit kuy koo xam ne bu la yàlla booleeg moom boo ko gisul ngay gën a sago sax ci boo ko gisee ndax boo ko gisee da ngeen nekk di waxtaan ak di fàtt di fàttali ba kenn ku ne sax fàtti sa bopp ci fu mu dem ak fu mu nekk euh, li ñu xam ci moom bi ñu koy xam rek ci alxuraan képp ca la tàmbalee ca la yam loola doy na waaye mu doy nga doyloo ko gën waaw ba mu nekkee ci yor ñetti dongo ci néegam nuy ànd ak moom di jaxasoo waxtu jàngale jàngale jotee ca loola lay ne fu ñu war a demit loola day mat ñu soog a dem feneen waaye moom li ma la wax dafa dafa dafa nekk ci lu doy ba noppi doyloo ko nag doyloo mbir bam ba bala la fay fekk fekk la fa mooy jafe kon sëriñ Sidi li ñuy ñaanal sunu bopp lañ koy ñaanal ndax mom moy sunu cër ci kër sëñ Modou Faa ma Ñang moy sunu cër ci kër sëriñ dekk ñang yalla suñu borom yalla nako ko sam doli ko sam doli ko yir doli suturam te defal ko tawfiq tey ak euh bu nuy wax ci sëñ sidi nak mënno baña ñak jël suñu xel dawal ko ci magam ju bax ji nga xamne lu nu séqoon ak ci yu rek jëmmam ji tax muy sëriñ Modou Ñang yalla yalla doli ñeegal ci mom ak woy juróom ya ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf kon mbokk yi ba tey rek euh, ñi ngi fii ci Aliya di wéy rek di ànd ak yéen ci bisub Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke bi ci koy fàttaliku xam ngeen ne nag période bii di période contexte pandémie bi tax na lu bare bari euh, ci wàllu dajaloo beeg yooyu sëriñ bi joxe ndigal rek euh, ñu daal di koy euh, ñaanal ci ni nga xam ne it noonu la jamono ji ni ko jamono ji laajee waaye kii ñu toogal di sëriñ Sidi Niang bu kër Niang di ko xam ne it vraiment.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 julli ci bi di sant suñu sëriñ Seexuna Amadu Bamba Xaadimu Rasuul ah di am mbégte ci seen waa télé bu baax di leen sant di gërëm ñaanal yokkute ah sëñ Baara nag yaakaar naa ni ku ñu waxloo ci moom ah, sawar nañ ci wax ci te liñ ci wax luñ xam la ndax doon na koo xam ni ah liggéeyam ci kër sëriñ Falilou ak liggéeyam ci kër sëriñ mm, ak liggéeyam ci jullit yëpp ak adduna sépp ñëpp teg nañ seen bët kooku dégg nga de képp koo xam ne xam nga ko rek xam nga loolu. sëñ baala hmm, li ma gën a neex ci moom mooy woyof li ma gën a neex ci moom mooy xol bu rafet li ma gën a neex ci moom mooy mën a dimbalee li ma gën a neex ci moom mooy am njariñ tey jii am na ñoo xam ne ñu ngi yor milliards tey ci réew mi ci sëñ baala lañ ko amee am na ñoo xam ne ñu ngi yor ay poste liggéey ci sëñ baala lañ ko amee kon dañ koy ñaanal yal na yàlla yokk ay leeram ca yàlla fay ko yéeneem musal ko ci cat ca fam nekk ci barkeb Seexuna Amadu Bamba Xaadimu Rasuul ndax kenn ko ne xam ne day la bëggoon moom yàlla defal na ko waaw lu war a liggéey lépp liggéey na ko xanaa ñaanal njaboot gi fi des rek dañuy jiital sëñ Moustapha mi nga xam tey mooy ab xalifaam moom it doon murid saadex doon taalibe sëñ Tuubaa doon ko woyof moom it ñu doon suñu lépp ñu ngi koy ñaanal li nga xam ne moom la waajuróom yéene woon ci kër sëñ Fallu yéene ko ci yoonu sëñ Tuubaa wi yàlla ko yàlla kàttanal ba mën koo yeggale ci barkeb Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul Moustapha mii toog nii moom laa ko tudde moom a njëkk a yóbbu Màkka moom sëñ Moustapha doon sama lépp waaw su moom a njëkk yóbbu màkk waaw moom it dégg nga de ku la defal lu baax da koy wax waaw borom kër gii nag di sëñ Gallas yàlla moo ñu boole comme ni mu waxee bi ñu dalee ànd maama ba léegi ëpp muy nit ku baax koo xam ne moom it ah ñi ñi ñi lékkul tiraangaam ci dëkk bi de bëriwut ñu ko mën a waat bëriwut nit la koo xam ni mën ngaa tabe ca doo yegg ci moom lu mu am joxe ko yéenewul kenn lu bon moo tax du am lu bon mukk du torox mukk fu jaar yàlla dana ko dimbali ndax man dama koo xam bu baax ñu yàgg ànd ci xuma ci moom lenn lu lu baax kon moom it ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal aw fanam ca wéral ay cëram ca fay ko yéeneem fay ko xolom ci barkeb baayam ba barkeb maamam ja ci ci barkeb njabootuk sëñ Tuubaa yëpp di ñaanal waa kër El Hadj Baara yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan ci yàlla yal nañu ko téyewaat na gën a déwén mbas mi yal na ko yàlla jeexal réew mi yal na fi yàlla daf jàmm ci barkeb sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la ziar di la ñaanal kon mu nekkoon kàddu yi sëriñ Sidi Niang muy kàddu yi am solo yoo xam ne yëkkati na ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw bu ñu sëriñ Galas Kaltoom Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Lamine daal di daaneele kàddoom yu tedd yi mu yëkkati muy kàddu yu am solo dañuy ñëw ci sëriñ euh, Basiiru Buso Imaam. Euh, sëriñ bi joxe ndigal ngir mu wara yëkëti ay kon sëriñ bi ñi ngi lay nuyu dila ziar dila dila dalal bu dul buso busoo wala buso gi nga bokkit manam kep ku ñi wooye imam ab cër nga am ci l'islam te kenn ku nekk xamna dayo bi nga xamne l'islam jox ko kon nak nga bari wo bolbut ko at bokkat bokkat ci njabotuk serigne Touba kon lolu benen cër la ñi ngi lay dalal nga yëkëti ñu ay kàddu rek inshallah ci Cheikh mohammed Lamine mi ñuy fàttaliku tey fii ci Aliya aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen am mbégte bu baax baax di ànd ak yenn sunu mbokk Arona Arona Cissé ak ki nga àndal di rafetlu taxawaay bi nga xam ne moom ngeen taxaw ndax toujours damay faral di wax ne yéen kër war ngeen góor góorgóorlu bu baax baax ndax tubaab yi moom bokk nañ ci li ñuy xeex fexe ba seen mbon gi di tasaaroo te li koy tasaare mooy ay média ak ay télévision kon nag yéen na ngeen góorgóorlu bu baax a baax di fas yéenee sax ci loolu lépp lu ngeen gis ci lu baax lu mën ne tasaare lislaam jumtuwaay yooyu yàlla jàppandaleel leen ko ba ngeen gën koo mën a tasaare ndax lislaam fépp fu mu àgg rek du yama du yam ak fu mu àggut te lii ngeen di def ab joxoñ la ci kon yal na leen ci yàlla gën a kàttanal ngeen di gën a tasaare njàngaleem lislaam waaye di gën a tasaare njàngaleem mag ñu baax ñi fi nekkoon ñëpp rawatina sunu yaakaar Cheikh Ahmadul Xadim kon ni nga ko waxee rek jëmm ji nga xam ne moom lañuy ñu fàttaliku fii tey di Cheikh Mouhamadou lamin baara di bokk ci njabootu Cheikh Mouhamadul Fadal Serigne Fallou ku ne xam na ab taxawaayam digganteem ak Cheikhul Xadim loolu moom ki mëjj juddu sax yaakaar naa ci yoonu murit boo ko laajee dana la wax kan mooy sëñ Fallou waaye Cheikh Mamadou Lamine Bara nag doonoon juróom benn lu xalifa mel ne ma mën nañoo wax ne mooy sët bi njëkk a wóotu Seyxul Xadim loolu di garaat bu rëy rëy ndax bëgg ko taxu fee toog Sëriñ Tuubaa mooy xool ki ki kim tànn mu teg ko fi serigne touba moy moy tan kim fi tek kon serigne touba tan nako ko Cheikh Mouhamadou Lamine ci teunk rek dafa sun borom dako koo li gën am solo ci doomi aadama te li olof di wax nan jikko moy lo xamne nit ki buy sangu du ko summi jikko di lo xamne sunu borom subhanahu wa taala bi mu tagg yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci jikko la ko taggee woon wa innaka la azim jikko jooju nag sunu borom da koo xaasal da koo defal da koo defal ci da koo defal Cheikh Mamadou Lamine Bara da koo defal mën nañoo wax ne jikkoom alxuraan la jikkoom alxuraan la ndax bu ñu seetloo woon tey jamono bi muy nekk Cheikh Mamadou Fadl rawatina jamono bi bi nga xam ne moom lay nekk Serigne Touba jëflante bi mu fi jëflanteeg doomi aadama yi. buñ taxawoon di la ko nettali tey jii suba ba ngoon duñ jeexal te lépp lu rafet la di leen dimbale di leen tinu ci képp koo xam ne ku ñu war a taxaw la ci zahir ak ci baatin mu def ko loolu kon suñu borom defal ko jikko ju rafet bëgg sëriñ Tuubaa lool nag bëgg sag ab sagam lool bëgg ab sagam mooy bi mu fi toogee rek li muy néew néew li muy gàtt gàtt li fan yi gàtt gàtt gis nañ ne joxaat na Tuubaa beneen xar kanam bu bokk ak bu meloon ci ubbiku ci yaatu ti sa safoo ñëpp xajoo ñëpp woyof daan wax lépp lu fi am rek taalibe yi la lépp lu fi am taalibe yi kon loolu jikko jooju nga xam ne moom la ko suñu borom defaloon te taggee woon ko yonente bi sallallahu alayhi wa moom la seex Mamadou lamin Bara feese dell kon fii bokk ci dëkk yi nga xam ne Serigne Fallou rafaatale woon na ko mooy Touba Aliya gi ndax wax nañ ne sëriñ fallu daa masa dox ànd mm, sëriñ Mouhamad Lamine Ba daa waajoon bay seet sëriñ Fallou sëriñ Fallou ne ko bu bi sàngamee danaa fa ñëw bu ñëwee Aliya ah, ànd ak moom di dox ba yàgg mu ne ko fii de fii de bërëb bii de jàkka jekk na fi nee na Cheikh Mouhamad Lamine Baara ba mu déggee loolu sëriñ Fallou dafa log loolu da koo log log ko log ko ba suñ borom may ko loo xam ne lenn lu ne fam bàyyi ko xam na ko mu taxawal fi jàkk ji mu taxawal fi jullikaay bi bi nga xam ne ñi ngi fiy joxe waxtu yu juróom di fi julli àjjuma amit daara joo xam ne ñi ngi fay yar ndaw ñi di leen fa jàngal di leen fa tàggat ci yoonu lislaam kon mel na ne Cheikh Mamadou Lamine Bara sunu borom defal nañ ko ab cër digganteem ak sëñ Fallou nag bëgg gi mu ko bëggoon ak jox gi mu ko joxoon boppam murid yëpp mën nañ cee seede waaye sunu boroom ñaare buy fay maanaan lu mel ne la nga jëf sag bëgg ci loolu la lay fay ndax boo seetloo keroog bi mu wàcc ab liggéey biñ ne suba la màggalu Kazu Rajab ci la wàcc ab liggéey kon bëgg ñu yóbbu ko ci way juróom boobu nga xam ne moom la bëgg mooy Cheikh Mamadou Fadil kon bëgg gi mu ko bëggoon mel na ne firnde ji tàmbali nañ koo gis xaat ci bisam bi nga xam ne moom la lëkkaleek bis bi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Fadil gane woon jamono ci biñ bis bi nga xam ne mooy mën nañ ne mooy bis bis yi gën a rëy ci lislaam ci la bokk ndax buñ demee bañ ne guddik suba ci la yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam jóge woon màkkatal mukaram dem gane ji sunu borom subhaanahu wa taala mu jox ko fa lam ko fay jox mboolem mm, secret yi ak mbóot yi ak julli juróom yàlla dogal bis boobu ci la seex Mamadul Fadil feeñ kon loolu geneen jagle la goo xam ne am na ci yoonu murit rawatina umma islam bi yëpp rawatina Sénégal gi ñu nekk kon nag bis la boo xam ne bisub ñaan la bisub fàttaliku jàmbaar la wala bisub roy ku baax la kon sëriñ bi nee na mi ngi ñaan bu baax a baax ci réew mi jamu xew ci rew mi jafe jafé yi nga xamné mo fi am ci digënté fan yi ak ya jitu yoy yépp sun borom man nako ci darajey cheikh mamadou Fadil yalla na jafe jafé yépp tuxu bañ wat ci jam ah, sun borom teg loxo ci rew mi ak mboolem rew yi l'islam yépp ci barkeb cheikh mamadou Fadil ci cheikh serigne touba khadimul Xaadimu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bi néna mi ngi leen bu baaxa baax ci taxaway yi ndax yëg gi ngeen am ci moom ba tax ngeen bàyyi buntu kër yu bari ñëw ci moom jël taataan li nga xam ne moo fiy ruus ci lu baax lu war a jàllale loolu mi ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ñaaral sëñ Aroona Cissé yàgg sa mbokk mi nga àndal suñu borom gën leen a taxaw zahir ak baatin ba fa ngeen bëgg àgg ci kàttan ak pësteef suñu borom àggale leen fa asalaamaaleykum wa rahmatullah Axelvision.com la crédibilité notre credo Senevision.com world la Togo. tëggoo kumpa tàggoon